ñu fekk leen ci wàllu cet geeg yooyu ga yor ko di jigéen. waaw maa ngi lay sant maa ngi lay siyaare ma it la sargal di sant dem bu baax di mbaay mbay ak ñi ma fekk soxna Ndeye Fall ñoom ñu man di ma ci duggee yàggut jërëm ñetti at rek lay tolloon waaye nag ma ci duggee léegi dalal nañ ma man ak sëñ Tuubaa rek ma ñor bi ma ci duggee ci jumaa ji laa dogee ñëw dugg si ñu won ma ne nii ma ne lii ko ci dugg nooy def ñu ne ma ni ma daal di jéem a dugg rek. bàyyi sama lépp nag ànd ak ñoom ci liggéey sëñ Touba bi di ko ñaanal nag fan wu gudd di ñaanal seex mais nag itam di la ñaanal yow itam yal na yàlla guddal seen fan ñu daal fa seen liggéey sëñ Touba yal na yàlla kàttanal ci barke borom Touba barke Seex Muntaxa Mbàkke bàyyi mbay nag yàgg suñ kanam lool ak jigéen ñu baax ñi ñu ko àndal ak yu góor yu baax yi ñu ko àndal waa damaa xaw a am si te rek léegi nii waaw kon dañuy dem ba ñu soog bi jeex jërëjëf waaw waaleykum salaam soxna Diarra ginnaaw bu ñu santee suñu borom tabaraka wa jul ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam donc sant xaadimal Moustapha di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha mii ko fi toog ci jotaay bi fanu gudd ak wér ba yéene yi mu am yëpp ci liggéeyal maam mu am ci lu koy njottam ci ànd ko ñun Euh, mi ngi tudd Daayiratul Abraar daayira bi mi ngi sosu ci mois de mai 2018 tombeeg jamono yi nga xam ni Cheikh mu Mountakha fi la jëkke euh, defee weeru koor yi fii ci kër sëriñ Touba bi ci résidence Khadimul Moustapha ca la ñu ànde nekk kuréel goo xam ni dañoo jaayante ngir bay sunu waar ci catug dëkk bi rawatina nag kër Serigne Touba gi ak li ko wër weeru koor yi yëpp heure ndogu bu ne fii la ñuy daje fii la daje ci diggante fóot ci ci diggante bale ak raxas fobeere buub ak fóot lépp luy setal rek kër gi nu topp ko di ko topp di topp ba nga xam ne nii at mu njëkk ma ci weeru koor mat na ba mu matee nag ci lawa kër gi xam ni liggéey bu mel noonu mënta ñàkk ci kër gi ci la ñoom ñëpp am yéene loolu bañ a dakk nu continuer ko nu jox ñu dibeer ji dimaas bu nekk ñu daje fi di def boobu liggéey ba léegi yàq nañ sax li wër kër gi dañ daa ñëw ci biir kër gi rek waaye léegi dañuy wër kër gi ak penc mi Cheikh Moudou taxaat ci boppam nag moo ñu tuddee daayiratul abraar bi mu ko tuddee ba pare mu daal di ñu koy fireel daal di may xamal ni loolu mooy gaay daayira gaay yu baax yi waaw gaay yu baax yooyu nag bi ñu nga xamee nee na ci nopp gaa ñi ma àndal ñoom ñëpp kenn ku ne yaa ngi doxi yitte yoo xam ne ni fi mu ne dafa kawe. koor gi da ngeen ñun koor gi nag ñun dañ fee taseeg daayira Hizbut Tarqiyyah ak daayira euh, soxna maam ahlu soxna maam Issa Mbacké ñoom lañ fi fekk ndax suñu suñu ñëw sax ca njëlbéen ke ci daayira Hizbut Tarqiyyah euh, la jaare ndax ñoo gisoon bunt bi nga xam ne am na ci mën loon a ñàkk ci kër gi ñu yégal nu ko ba ñu sóobu ca ba lii agsi ci tey ba sëñ bi du nuy doxu tur ñun nag liñ féetewoo mooy bu kër gi bu ñu ndogo ba yeggal ba kër gi tàq ba set ba ba ñëpp jóg fañ ne woon noo fay topp setal ko fànn yëpp la fa la foot nu yóbbaale ko foot ko ci guddi gi bu ñu xëy indi ko ñun laalaat napp yi ci bëccëg gi dafa di ko topp noonu ba weer wi dee waaw loolu day moom budget la budget la waaye daanaka dafa mel ni daal lu ñu tiim rek la waaw lu ñu tiim rek la ndax transport bi nga xam ne mooy jëli personnel bi ci eh, ci ci eh, eh, ci ci for ci kii bi ci banlieue bi di leen indi fii ak ci fu nekk ci biir dëkk bi boole kook matériel yi ñuy jënd muy madaar eau de ay bale yooyu yëpp fi mu ne budget la waaye dafa mel ni dañuy tiim rek ndax kenn ku ne li nga am yaa ko ci def ay bon volonté yoo xam ne dañoo dégg ni lii liggéey bi wax dëgg yàlla liggéeyal yàlla la ñoom itam ñëw di ci def seen ñax ba amul benn jafe-jafe amuñu ko waaw benn euh, dara manqué waaw boobaak léegi dara manqué wuñ. projet ci kër gi la yam waaw suñu projet euh, suñu projet pour le moment mhm. euh, moom suñu mission moom mooy set seetal dëkk bi hygiène nun daal set mooy suñu moom mooy xam loolu la ñu visé set gi nag dañ koy départ ci xolub dëkk bi. mooy kër sëñ Tuubaa gi ak jumaa ji li ko lépp rek penc mi euh, lu ñu gën di avancé nag moyens gën di yokk ñu gën di yokk ci barab yi sell yëpp ñu koy setal waaye pour le moment daal moom danañ fexe ba fii muy kër sëñ Tuubaa moom muy matt goo xam ne moom du laal suuf moom saa su ne sarto muy biir june dimanche bu ne moom danañ fi dana setal ko dañ ko daan ba mu set wicc dafa ñu mat a def parfum ñu fa parfum bu bu dara bi rido yi ñu jël ko bu jigéen ñi séddoo ko saxatoo ko fóot ko indiwaat ko ñuy indiwaat waaw. Mm-hmm. kon ñu ah, ci waxtaan liñ ci waroon a dolli rek mooy di xamal euh, téléspectateurs yi ak ñi nga xam ñoo ñu déglu ñëpp ni nun euh, kuréel la goo xam ne dañoo jóg ngir liggéeyal yàlla euh, dañ koo jaayante nag. ñun suñu ngir dund euh, di ñaan sëriñ bi defal na muy ak mat goo xam ne dañ ko roccee ci roppee ci sayu mag bi mu nekk mat goo xam ne nañ ko sëñ bi téel ba du laal suuf mukk ñoo ngi woo ñëpp nag kenn koo xam ne nii liggéey bi soxal na la walla lii ñuy def euh, yitteel na la ñu jox nañ la loxo ngir nu mu gën a yaatoo rek nu mu gën a yaatoo rek moo mën fi gënal ndax am na fi ne fu mel ni Kébémer fu fu mel ni piir Pire euh, ak fu mel ni euh, Parcelles am na fay mbokk taalibe yoo xam ni ñu ngi fa di fas seen kuréelu abraar ñoom itam bu ñu léeg-léeg bu ñu dajalee ay màjjal ay dara indi ko jënd koy ordre sawel ak moo daan yónnee ñu waaw jërëjëf waaw daal amin amin jërëjëf jërëjëf sant nañ baax a baax